na ko réew mi xam ne ci presse bi laa. lu ma politisee lii ma indi. na ñëpp yëg mais ñu ngi soo ko comprendre li tax. gars yi mosuñoo bëgg a publier liste bi waaye kan moo ko publier. mais mais ñun woon ay nit lañu wala ay kubéeru cin. Ah, ay ñu sañ nañ de. waxuma la kubéeru cin de waaye léegi waaw. Euh, xoolal nekkoon na dem pour pour pour nga def transition. Ah. bu bul indi beneen info ci diggante bi. yow yow. demal ne ko na daw ba yoor yoor na daw yëpp ma yoor yoor nga dellu si waat libération ma yoor yoor demal yoor yoor mu ngi commencé naaj après nga teel ma tey yóbbu ma tey waaw <laughs> yoor yoor yéen i kaay ñoom ñun ci non tey nag moom bi tey moom vraiment li ma ne tey sa loxo bi gaaw na merci aide à la ou presse merci wàccal dafa dugal a ci digg bi tonton scandaleux et honteux. waaw de l' argent du contribuable. léegi taxawul foofu tonton gi lan la nagu tam xarit lañ ko def. Mm-hmm. waaw scandaleux et honteux. wala xaru xaru tabaski. xaru tabaski suñu jamono ji waaw pooj bi waaw pooju bàjjen. pooju bàjjen yeelu maam. yeelu nijaay. waaw dënduk njëkke. waaw béjjëlu. fàllare fàllare bàjjen. ndoddum nijaay. ndoddum nijaay. ak turu xale yi. xuuru xale. xale yi. ñu ngi teel. bu leen jël dañuy ruube ñi ëpp nañoo jël instant bi ak lan. bu ñu kenn wane ci télé bi. ak lan. nopp dëkkandoo. nopp dëkkandoo. dégg loolu. Fallare Badiane. dégg loolu. sële dégg tànku maam tànku nijaay. dama njëkkee. dégg nga loolu. bopp bopp maam <laughs> dégg nga. sikki nu tànn te xale yi tamit xaru tabaski am nañ ci wàllu mooy ak xuuru xaw soo see soo see xaw si. xuuru xar ngeen moom lekk. xuuru xar man dama lekk rek. ku ko def ak a neex. wala bàcc yàlla yow lan nga toog mënoo woon woon toog rek benn ma toog. la ah, bokk. à la yow cinq heures du matin ni ci dëkk bi. daaw xuutal xuutal damay delluwaat nii sax li ñu wax ci xam-xam moo la tiit maanaam xam ne lañu mani xam ne lañu eh, bi lañ jël tom tom ko ne xaru jamono ji nii lañ koy defee de xaru jamono ji dëgg waaw yëgal yëgali bi. de l' argent du contribuable. waaw ñu dem le décret. numéro deux mille vingt et un cent soixante dix huit fixant les modalités d' organisation. waaw. et de fonctionnement de l' aide à la presse non respectée. jaara suivre décret ba ñu bind. waaw nga xam ni ca président la jóge waaw pour lépp li nga xam ne moo jëm ci ndàmp yi. ak ca nañuy war a defee. Mm-hmm. aide à la presse. Mm-hmm. respecté wu ci dara. 800 millions alloués gracieusement à des entreprises hors du secteur de médias. waaw lu toll ci milliards bu manqué ñaar téeméeri millions la jox daal nii daal nii ay ñoo xam ne ay entreprise la ñu te nekkuñu média. te ñenn ñi seen tur nga ci liste. maanaam ñii daal xaalis. non média muy dox. tooñ nag mënul weesu lool tooñ nga leen de. yëngale. correct. millions. commission de la carte nationale de presse. 40 millions. Symbix. 10 millions. Appel. 5 millions. Saisine. 25 millions. as Sestil 25 millions. Assise nationale des médias 50 millions. Convention des jeunes reporters 15 millions. oh hmm. maa nga <laughs> convention des jeunes non mais DPV rek ñu xaalis bu ñu seetloo aussi de. c'est pour financer des activités. waaye déglu rek yow da ngaa bokk ci yenn ci kuréel yi moo tax. <laughs> ça c'est bon ça c'est bon déglu soo seetee nga ca appel la sa takkusaan. <laughs> te yaa pare 15 millions commission de la carte nationale de presse 40 de Senpix yéegali ba su waaw appel 5 millions. waaw CESTI. waaw 25 millions. waaw assise nationale des médias 50 millions. boo booy ñoom soose. ñoom ñoo ko juróom fukki millions lañ leen laal. soo yëgale yëgale. convention des jeunes reporters. 15 millions ñëw. Amina Amina. <laughs> soo nga ne nga ne xaalis bi fu mu. mais dafay activité nag xëy na peut être. non c' cinquante millions ngeen activité yi. may ñu rek ay may ñu rek séminaire may ñu rek on est mm-hmm. de l' argent honnêtement. waay waay soosee. juróom fukki la laaj noonu la laajee tamit ay ay moyens ay xaalis. Mm-hmm. ñoom amina je défends man moom je défends les les les les reporters. Mm-hmm. Ah, déglu leen ñu rek léegi. reporter yi kon waratuñu. waaye déglu rek waaye déglu rek. premier 15 millions. léegi soose. jël ko direct léegi soose. ñu ne. 7TV euh, bu may mënoon dul fay. la mu laal. moo ëpp foofu li TFM 2S laal wolof moom. dañ koo compal. coppati Samba ay naar. xam nga bañ a coppati. yi ñuy defee nii. te mu nekk groupe. ba dañ koy coppatin. waaye déglu rek mu ne suñu xoolee xoolal organisation yi ni mu demee rajo commercial yi. Hmm. jaara laal nañ quarante quatre vingt quinze millions. Mhm. site en ligne yi nañ cent quatre vingt dix millions. Hmm? site en ligne yi waaw cent quatre vingt dix yi cent quatre vingt quatre millions mais lu doy waar mooy 7TV bu may mën a Ndour Faye trente cinq millions. Hmm? E-Media TV vingt millions. 2S TV vingt millions. et même TFM cinq millions. dégg mhm. ñu ne en raison de sa ligne éditoriale daa safoon sàpp waaw Walfadjri dañee coppati. six millions ay waay ci groupe. Walf TV six millions six millions. maanaam cinq fois moo nekk 7TV dégg nga loolu. Mhm. ñu yeggale ba léegi nii ah. waaw ñu ne nguur gi fi nekkoon yëfu yi ñu doon def ba léegi nii la Lamp Fall TV onze millions leeral onze millions lañ laal yaa ngi dégg loolu est-ce que yaa ngi koy dégg maanaam on quasiment perçu le double du montant de Walf Mourchid TV huit millions léegi soose. Mhm. ñu ne ñëw leen nag léegi ci ligne yi ci ligne yi ñëw leen ci ligne yi Seneweb vingt six millions Chess Afrique seize millions Walf Group point net quatre millions dégg nga iMedia mhm. point sn fi ñoom jaar ak Amina nekkoon onze millions waaw Sénégal million dañ koo bindal un seul petit million lañ ko bindee man Sénégal nag man li tax mu am un million man jaaxal naa ma nag waaw Sénégal point com site bu toll noonu un million dégg léegi nag ñu doog a ñëw ci site yi nga xam ni démb bi ñu leen fi noddee la leen nit ñi xam sur le terrain point net sur le terrain point net mu ko xam wallaay kenn moomu ko moom Moussa ko moom lii gàncax gi TV. kan ma ko moom ñaata la am ñaata la am. le terrain point net un million cinq cent. moo ëpp TV Wonel TV wane wane ma TV deux millions cinq cent. prestige Thiès point com un million cinq cent. dégg mu ne ñooñu sax ñoo ëppale Sénégal. waaw un million vraiment pour se négocier ici. leeral point net douze millions Dakaractu point com vingt quatre millions mu ne ay organes yoo xam ne nag dañoo mel ni Dakar Minute Arabe sept cent mille. waaye Minute Arabe sept cent mille. alxadaas. loo leen di rey lii du alxadaas. alxadaas waaw. alxadaas mais bu nekk Qatar. alxadaas. alxadaas. Arabie Saoudite. 700000. alwatan. al. al. al non alwatan dëgg de. alwatan. al al alwatan ak kii alxadaas ak kii. alwatan alwatan wala. déedéet alwatan alwatan. alwatam. alwatam mii mi. alwatam mii mi xaar ma ci. 700000. yéen 500000 700000 li du alwatam. alwatam mbedd mi de léegi mu ñëw. mi TV bi TV laay xaw ma bu ñu reetaanul dañ. waaye doo xam dañuy jooy ñun nga xam bi ñu bi ñu amee rek doy na set. mënuñ ci boole non c'est que xam nga. naqar di jooy faaw xam nga lii xam nga xam lii dafa nekk scandale boo xam ni. wax oh, dëgg la léegi non léeg-léeg nit reetaan ci bërëb boo xam ni. jooy dafa sax war a mm-hmm. parce que tellement affaire bi mooy scandale la ba mujj soppeeku. Euh, waaw kay parce que da nga naan noo lii mënta ne lu mënul na nag léeg-léeg mu saf la mm-hmm. Mm-hmm. mais nekkul ab reetaan woo a maanaam pour saboter mm-hmm. voilà ku déglu lii da nga naan non non non c'est pas vrai non non lii mënul ne waa ji mi ngi mel ni kuy film ci man te loolu lañ ndiru de ah, lañ ndiru de ah les indiens dégg <laughs> <laughs> am na benn en ligne bu ëppale wala ah Seneweb Seneweb moo boole Walf Dema indiwaat ko Libération. indiwaat ko Libération. mais Seneweb du faw nga commencé réew. Mhm. indiwaat ko Libération. ñëwaat na Libération. Abdou mhm. waaw. yàlla ñu yàlla dugal waay. amiin. voilà. Mhm. léegi nag. waaw ci scandale ba un scandale éclate après la publication de la liste. nekkul Daloba Kese. du Daloba Kese. déedéet. ah waaw mais affaire bi nag compliqué na de. ça am na ñeneen kon ñu bind. ñu bind te laaluñu. te laaluñu. ça devient sérieux. maanaam comp nañ leen. waaw léegi nag comme que journal bi yow revue des titres ngay def ak revue de presse comme que binduñ ko ci journal. zéro franc. ñu laaj deux ans yi ba ba muy am sax fekk ñun ñu ngi doogay juddu boobu. deux mille vingt deux deux mille vingt trois la ñuy wax nii non. waaw deux mille vingt deux deux mille vingt trois fii la fekk. ñuy doogay juddu boobu dañuy doogay juddu. jëluñu. amuñu. scandale bii ñu wax ci kii dental dental mii dental. dental mii waaw. waaw dental mii Abdou Fall. dental mii ngay gis nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii du moom donc journal bi bind ko moo tax ma ne la comme que da ngay révider titre. waaw ñoom ñu bindul noonu. nañ bàyyi ba suba buñ ci waxaat ak yooyu nga xam ne buñ ñu laajee ñu wax. d'accord waaye xoolal bind nañ seen i. waaw mais mais itam ki bind seen tur tamit soo tam. waaw kooku tam kooku lañ war a lijjanti. waaw mais xanaa kooku moo jël xaalis bi. moo lal moo lal diir bi. mooma. ki ki leen bind la. kan la am na tur am na sant nañ ko wëri. non ki sugu. yow tey bu ñu waxee ne par exemple pass yi deux mille cinq cent la après match bi. Mhm. deux mille cinq cent deux ñu bind la yow nga dem ñibbi ci ëllëg si ñu ne démb bi ñuy joxe pass yi sa turu nii. nga ni man jotuma. Eh, te yow mais ci kenn rek nga war a jubali mooy kan moo doon bind liste bi. yow yow bu fa nekk sax naan président bi. non joxoom ak lii yow xoolal ki bind liste ba. ki doon joxe paas. ak ki doon joxe paas eh, man ka doon joxe paas yi intéressé wu man ka bind liste ba rek. non ko joxe paas mais ka bind. ko ki bind normalement normalement da jox comme sóoru nawetaan yi dañ lay jox. bind sët wala IAC. xañ na ma koy bañ a daan naan vodi wala IAC sax <laughs> kii kay waxuma la naan bokkaat yi waaye. wala IAC gars yi jox la paasu gars yi nga encaissé dem ñibbi ah. boo dellu see ci ëllëg si dañ laa war a tay ci gàmmu <laughs> gi man de daan nañ ma jox may joxe pour ma war a joxe léegi la nga ñibbi moom li maamu laay léegi la nga ñibbi parfois nga déclaré kay ñoo xam ne sax kon kay yow kay yaa aide à la presse bi sama <laughs> non dañu ko doon jox rek en tant que ah, léegi nag nga kii ah, ah c'est que problème bi mooy non dama ne def <laughs> capitaine ñu bind liste bi waaw ñooñu journaliste yi nañ gën a xool non sans question moom laa njëkk a posé de ñi ña ñu yónni woon ñu yónni woon ñu joxe ak ñu bind. Mm-hmm. xam nga affaire bi chaîne la. Mm-hmm. balaa dara di xew. waaw président de la république ci boppam. Mm-hmm. li décret di nekk ci kaw lépp lépp lépp lépp loo mënti gis. dafay sukkandiku ci mbir. waaw littoral bi biñ ne dañ ko war a déclassé. moom mënul tëb rek signé décret. non non dañu def après une délibération de la ville. de Guédiawaye. et après approbation du préfet du préfet dégg nga waaw conseil municipal yi ñoom ñoo daje bàjjenu gox yi gaa yi yëpp daje waxtaan ba pare jox autorisation les conseil ne leen dem leen ngeen def délibération ñoom ñu dem organiser bureau municipal d'abord mhm. conseil municipal après bu ko defee nag te loolu sax même bu ko conseil décidé ba pare mhm. te amul approbation préfet préfet du jàll dañ naan dañ ko rejeter parce que kooku il est là pour le contrôle de légalité loolu jàll ba pare ñu jël ko nag jébbal ko président de la république ne ko conseiller ñoom ñoo représenté mm-hmm. le peuple peuple peuple peuple peuple Guédiawaye bi wala peuple nangam sax léegi lii aussi aide eh à la presse bi gis nga décret bii ñu bind fii décret décret décret numéro décret numéro deux mille vingt et un cent soixante a les modalité d'organisation et de fonctionnement de l'aide à la presse ñu ne respecté wuñ ko gis nga décret boobu noonu nga gis noonu. dafa am fu mu sukkandiku benn ci code de la presse dafa am fu mu sukkandiku ci nangam code de nangam. mais du tëb noonu rek parce que dafay bañ a violer. lii ak lii ak lii ak lii ak lii. waaw hmm. te gars yi nag yenn saa bu ñuy def ay loi dañuy dañuy profité yenn saa dañuy profité. waaw te fàtte ne am na leneen loo xam ne nii mën na ko bloqué. moo tax yenn saa yi nag ñuy am problème yu mel noonu. c'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag ci code bii nga xamante ni nii dañu koo dañ dañ koo defar ba pare décret bi foofu la sukkandiku pour wax ni lii chaîne la waa ji fële lay tollu palais def décret léegi nag kii bind liste bi ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum finance bokkul ba léegi ba ci ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe koppar gi. fan la ñuy jëlee chèque yi. chaîne la. la. comme tey jam ñaajo la ministère yëpp nekk. ñoom seeni finance mën nañoo nekk fii building ba léegi. parce que ministère yi léegi dafa kalaatewu tourisme rek boo xoolee li mu yor ci ay am nañ benn almadi am nañ benn fii centre ville am nañ beneen jam ñaajo dangay bëgg a dara ci benn ministère. mais foo dem ñu ne la non non kii kii kii nii fee nga ko war a déposé ji almadi. Mhm. wala non demal building demal building. comprendre nga ay sër. léegi nag léegi nag lii neex naa lijjanti. Mhm. ka bind man waxuma man ki joxe chèque yi de. compliqué wu mais dama ne ki bind liste bi ba bind ay tur yoo xamante ni ñoo ñu. amul ki doon def recensement. xoolal waaw ah, ki bind moom mooy recenser les médias. waaw kooku nag moo jëlal xoolal xoolal benn comité dafa am comité bu ko gérer. mooy soo comité bi laa doon seet nii mais gisuma comité boobu arrêté ministère yi ñu doon waaw waaw mais nañu xool les membres de ce comité. mais ñun li nga xam mooy les les organisations faîtières ci presse bi. le la communication muy léegi nag moo doon ndax comité bi moo moo géré directement. loolu moom loolu yomb naa lu d'accord loolu yomb naa lijjanti li ñu interpeller le comité ah ñoom dinañu wax aussi sur quelle base cette liste a été bu ko defee ñu xam. d'accord ñu ñu jàll ah, ci beneen. di nuyu suñu grand Ousseynou Dieng au passage c'est le directeur de la communication. Euh, ñu jàll ci beneen <coughs> baax na. ñu dem. yéeme na de. mën naa dem <coughs> non non. toogal. lii quotidien ci. visite en pelure au grand magal Diomaye veut étancher la soif à Touba bëgg na daqal mar de. Mhm. Mhm. waaw CNRA invite les médias audiovisuels à se conformer. waaw kay.